maa di jaay pokal yenu nit ñi dóor ci suuf ay kulun kulun ay affaire yooyu noonu mu ngay way comme bëgg mu ngay way comme bëgg léegi nag buñ ko dawalee ci sens de léegi képp koo xamante ni wayati nga ki nga ko bëgg même bu dee Sénégal la. Mhm. mais bu dee way nga ko ci ñu ñu duur. exemple dama lay jox turu soxna Zeynab Thiam. voilà mu jëloon son bi interprété ko. way ko ci olof mais même yi est-ce que ko permettre. en tant que waykatu euh, ci mhm. këru euh, benn euh, ci benn këru diine en tant que waykat mhm. bi ak ci yi. ko koy tegal ci weeru koor boobaa daf may jël rek comme daf may jël rek. bu ñëwee toog fii communicateur bu ñëwee toog fii ñu mën ci waxtaan ak ñu waxtaan ak yaa tab ñu indiwaat ko mm. indi parce que bu ñu ko joxoon yaa tab tab ci wolof. da koy way ci mbëgg da koy way ci ki mu bëgg. ah ñu ngi koy teg ñu ngi koy tegal naar yi. ñu teg ay ay ñu sol si vêtement ak yooyu. est-ce que dina ko way nañ ko tegal suñu doom yi. ayca ayca dañuy ñëw suñu première euh, invité euh, avant muy ñëw ci euh, plateau bi dañuy dem seetaani clipam bu ñëwee ci plateau bi ñu waxtaan ak moom. bu ñu waxtaan ak moom ci sa carrière waxtaan ak moom ci li muy def. ci li nga xam moo jëm ci musique diine. Mm-hmm. lépp lépp dinañ ko laaj ndax bu ñu jëloon yaa tab tab. Mm-hmm. te teg ko ci loxoom. Mm-hmm. boole kook ay ay. orchestre ay fer ñeent ak yooyu yëpp ndax loolu ci wolof. voilà ah, hmm. ah, bañ a kaa ah, a kaa def bu dee moom bu ñu ko laajee du tontu dañuy woo Oustaz Mor Thiam laaj ko. <laughs> nañu dem nañu dem xooli bi euh, te ñëwaat léegi ñu jël suñu première invité Weekend Stars version Ramadan. fekk waaw dinañ fa ñëw. Ah, ñëw ca kër ga loolu autorité la. loolu rëy na bu ñu invité dinañ ñëw. mais nañu wax ni ñi nga xam ne ñoo bëgg invité. dëgg la ñu teel a inscrire parce que euh, dañuy xat. dafay xat waaw dañuy xat dinañ dem ba ci kanam. déjà ni instant emploi du temps bi. Ah, fatt na ah, quoi ah. fatt na mu ngi commencé fatt man instant est-ce que sama calendrier est-ce que ay 4 jours. léegi nag li ñuy def mooy dañuy jox nii euh, fi ñuy xam ni fu koor gi mm-hmm. dañ ko fay dog. lekk mm-hmm. fa tàndarma. lekk mm-hmm. fa mburu naan fa euh, meew. bu ñu faree foofu. foofu ba pare foofu dem foo xam dañ fay dem reer yi. dañ fay dem reer yi dañ fay dem reer yi déjà damay nuyu waa kër ñoom euh, Ibou Diagne. waaw yàq yaay Baba Diagne. boobu ubbee falaa na ah. eh, man xaw ko ba man boobu léegi xoolal foofu rek. fa foofu rek la ñuy topp. ah la ñuy topp. Ah, ñun ñëpp dellu de la de la part personnelle ñëpp ñu ngi leen nuyu bàyyi nga ñama xiit. mais bu ngeen demee toog ñu jox leen ngeen dogu ak yooyu bu leen fa yàq kenn. non loolu ñama xiit la waaw waaw toog leen ngeen dogu après ngeen jub génn. yàqaate geeg wax ju ja. waaw xam nga ah. abaa xaaraan yi dafa diis. waaw soo xaaraanee. bu ñu la joxee il faut nga wax waaw boo wax leneen loo xamante ni waru ko wax da ngeen ñuy comprendre rek ci mood boobu ñu nekk. nañ dalal suñu invité euh, suñu première invité tey ci weekend start soxna Zeynab Thiam. ndeysaan salaamaaleykum soxna Zeynab Thiam. waaleykum salaam wa rahmatulah lay ziar. ñu ngi ñëwaat ci léegi dafa mel ni euh, sa micro il faut ñu defaraat ko ñu mën a awaat ci euh, nuyoo beeg yooyu yëpp ñu commencé. ñu dem xoolaat euh, clip bi te ñëwaat léegi le temps ñuy lijjanti micro beeg yooyu ay ca Abba. nuyoo sama mbokk pas-pas. soxna Zeynab mu bàyyi la nga nuyontewaat ak euh, mbokk téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi seetaan. waaw maa ngi lay fay nuyu di nuyu Toch di nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan à travers télé bi ak euh, plateforme digitale yëpp. Mhm. di beral nuyu nag sama kilifa sama wasila. l'athlète spirituel le plus extraordinaire de l'histoire mhm. l'héritier ultime de tous les ki nga xam ne ku mu yàlla tegu ko loxo góoru Tafaten waaye soxna Umul Xayra ak soxna Fatima papa de tous les moustarchid borom Kajoor mhm. ko sàmmal ko aar ko teg ko loxo ba mission bi àgg ko borom seen sama borom kër bi ma bàyyi ma ñëw ndax su mhm. sama yaay sama waajur Oustaz Mor donc nuyu bu baax ak njabootam yëpp di nuyu waa Yaraax ndax fa laa jóge ñëw di nuyu képp seetaan et la fédération des journalistes Sénégal maa ngi leen nuyu di tey bu ñu la doon wax nga présenté wu euh, nga wax ñu yow yaay kan euh, danga ñuy waxal lépp rek ba nga commencé foo commencé lan moo la indi ci li nga xam ni moom mooy di way lu jëm ci wàllu spiritualité donc tey présentation boobu foo ñu ko doon defal lan nga ñuy wax. waaw xam nga nit du bëgg lu di Babalu Mouhamed te ku juddoo màgg ci keppaaru Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha Sy soo duggee ci musique orientale musique arabe du du du jaaxal kenn parce que ku ngeen keppaar boobu xam ne si lañ leen dañ ci judd nag fekk génn euh, ci yàlla def nag ñu am ci cofeel ñu ci amee cofeel yàlla dogal ñu am ñoo xamante ni ci seen loxo la suñu borom jaarale ne suñu carrière ci ñoom lay jaar mm-hmm. euh, muy hayatul amalil xayriya Human Appeal International di benn organisation boo xam ne fa lañ nekkoon yàlla def ñu gis ne xale kat am nañ passion ci musique orientale ñu jëloon ñu ñuy formé en l'occurrence Binta Thiam ak euh, Ibrahima Thiam bu firqatul a mu leen nuyu au passage donc ñu formé ñu pendant six ans en même temps ñu intégré woon seen orchestre depuis 2009 ñu intégré orchestre bi di ànd ak ñun ba yàlla def suñu orchestre boobu donc entre temps on a fait des def nañ aussi ay clip et donc dañuy woy en arabe di woy en wolof parce que xëy na arabe bi ñëpp duñ ko comprendre mm-hmm. wolof bi tamit xëy na accessible si ñëpp mais soo soo boolee ñaari mm-hmm. di nga mën a nga mën a wax ak ñii mën a wax ak ñii loolu ci ñaata at lay toll parce que ku la xool xam ni say at taxu ko euh, bëri noonu nga mm-hmm. commencé ci depuis loolu loolu ci ñaata at lay toll donc officiellement bi ñuy intégré orchestre 2009 la ñun ñoo fi lañ intégré orchestre officiellement mais bi euh, ci ci ci un an et demi lay li mhm. xale yi di nekkee nii euh, di nga mën a nekk ak ñoom comme xale yi baal yi xale yi ak est-ce que yow ak xale yi bu ngeen toogee di waxtaan di ngeen mën a bokk fi ngeen nekk. <laughs> baali moom bokkul samay mbir. bokk ci ñii baali di nga waxtaan ak ñoom. waaw man ñii baali ñoo may seetal. ñoo ñëw ci yow. dañ may déglu. ndeysaan. parce que dafa am kilifa boo xam ne soo ko amee. mu mhm. teg la si benn yoon te nga xam moom fi mu jaar. mu bind ñi mu am ngay mën a wax ak ñëpp. waaw da ngay mhm. mën a. en parlant en parlant en parlant de kilifa boobu noonu muy mhm. Serigne Mouhamadou Moustapha Sy mhm. al euh, al Maktoum mhm. di nuyu waale Moussas Dine wala Moussas Daan yëpp di nuyu sama tante tata Aminta Sarr maam Babacar tamit sama xarit la mu koy nuyu mu sëñ Moustapha ñoom euh, damay gis à chaque fois Tidiane yaa na mais damay gis bu ñu nee Moussas Dine wala Moussas Daan gis si mélodie gis si musique bu doux bu soft maanaam foofu dafa am lu ñu leen ciy formé dafa am benn plateforme boo xamante ne spécialement dañ leen ciy formé yéen wala wala nan lay demee quoi pourquoi bu ñu nee Moussas Dine rek di ci mën a dégg musique. waaw xam nga xam nga musique bi orientale la. Mhm. du du musique boo xam ne suñu musique la. dañ ko jéggaani. ok mais tey spécialité bi mu ngi nekk ci man mi nga xam ne maa nekk nit ku ñuul mën a reprendre wayu Maher Zain en arabe reprendre ko ci beneen langue jël instrumentalam mhm. dugal ci baatu boobu. Mhm. Euh, spécialité bi foofu la nekk. parce que genre musical bi pour man c'est pas un souci. parce que mhm. musique musique la. Mhm. donc genre musical pour man du problème mais way boo gis tamit dafa am xaal bu ñu koy woyee parce que tey mënoo jël xasida Serigne ay way daw nga jël musique bu rythmé dugal ko ci. donc loolu noonu tamit day am formation. parce que am na ñoo xamante ne c'est des instrumentistes hors pair. yoo xam ne seen spécialité loolu la. Mhm. ñooñu ciy formé. ok ñoo ñoo ñuy formé ci. tey di nga ñu wax sa ay projet euh, di nga ñu wax looy waajal clip bi mooy sa clip bu mooy bi njëkk mooy bi mujj. mooy clip bi laa mujjee def. ok hmm, ñaata clip avant bi. bon je pense que bii mooy sama sixième clip. sixième clip. da ngay def album wala da ngay woy par single. maa ngi def par single maa ngi waajal album. yaa ngi waajal album tey album bi suy ñëw ci lan la tey euh, amul dara loo xam ni euh, mu ngi dem ci sa xel tey suba nga way même bu dee Serigne Cheikh la wala Serigne Moustapha wala Serigne Babacar euh, nga yokk ci benn ku yor tama wala yokk ci loolu yaa ngi xalaat ci projet yu mel noonu. non pour wàllu instrument. instrument yooyu waaw loolu dafay dépendre ci chef d'orchestre. ok parce que chef d' orchestre moom mooy wax bu ñuy dem concert sax moom mooy def fiche technique ne lii ak lii ak lii laa soxla. donc loolu dafay dépendre ci ci. kon tey mën nañ la xaar ci kaw seen nga indi benn cung wala benn tama wala yooyu ça dépend ci. du ngeen faral di laal ay marimba wala affaire yooyu. tos am tos ñu gën a sérieux. dañuy sérieux la musique orientale. ñu koy wax parfois afro arabe. donc donc afro yi mooy ñun africaine yi koy def. Mhm. arabe bi langue bi nga xam ne moom lañ koy defee d'habitude. Mhm. mais mais genre musical bi c'est oriental. Mhm. donc instrument boo xam ne du instrument oriental. Euh, gisaguma boobu benn orchestre boo xam ne euh, jël na. par exemple moo Assane Thiam ne ko kaay mais nga innové quand même mais nga innové pourquoi nga war a xaar kenn. waaw mais innovation bi aussi na fekk mu dëppoo ak contenu bi nga xamante ne donc tey bu weeru koor gi ñëwee dañuy gis ni seen ay programme yéen day gën a yaatu. donc lan mooy sa ay programme yi nga xam ni am nga ko ay activité yoo xam ne dañ ko war a def ci koor gi balaa ñu dem ci projet yi. bon d'habitude activités yi ñuy def déjà xam nga léegi ñu bari dañuy def seen ay cérémonie Euh, di utiliser genre musical bi ñuy def seen ay mariage seen ay anytime ay conférences yooyu noonu. anytime da ciy dem yi. pour sa xel mi nga téye ko euh, ci ene yi waaw. nu muy faral di mel day am ay bongo. wala man bi ma xam de am. non non yeneen day sànni. mais mais élèves eh, yi dañ fay tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. macha allah bàkk fa suñu mag ñi ñu am. à travers seen ay bind wala ñu bàkk fa suñu mag ñi ñu am parce que war nañ leen bàkk ndax ñoom ñoo tax ñu. seetal na ay élèves yu yu baax yi dañ koo war di wane seetal na ay élèves yu nag. yu baax yi dañ koo war di wane. donc ayca nañ dem ci euh, programme yi. Ah, ah, mhm. donc mhm. ci koor gi mu ngi si ëpp à part les plateaux télévisés. Mhm. Euh, conférence religieuse yi nga xam ne mooy am parfois mu am ñoo xam ne dañuy organiser ndogu. Euh, comme par exemple jigéenu assemblée nationale yi. Mm-hmm. Euh, programme yi ñuy def Radisson tout le temps dañ fay dem. Hmm? ak waaw ah nga marché de. <laughs> yeggali yeggali. tos bi nga ci wax. <laughs> garaaw garaaw góorgóorlu rek tos bi toog la ni. Eh. Eh, noo def na nuyu boroom këram. borom këram parce que yaay daaneel borom këram. ndeysaan donc loolu pare guñ ci émission bi mu ngi waaj a. Eh, wax ci ay projet am mu yeggali loolu dinañ ci ñëw. monsieur Diatta ndeysaan tur bi. <laughs> ah Seydina Alioune Seydina Alioune Diatta ñu ngi koy ah, nuyu ah, ah, ah di di kontaan bu baax ak Mouhamed Mouhamed tamit ñu ngi di la wax tamit ni ñu ngi xaar sa cover. yaa ci yaa loolu loolu loolu tamit mais tamit avant ngay avancer ci say projet il faut nga wax ci lii lan nga ci xalaat euh, way Seydina Aliou Diatta euh, moo Baye Mohamed Diatta wa ali euh, Serigne Zeynab Thiam yaa Baye Mohamed man naf naa la Baye Mohamed <laughs> yaa may teewee nelaw yaa <laughs> kee loolu la way de mais yéen ñi ko war a couvrir mais loolu danay imposer ci marché bi <laughs> ñëwal ñëw nañ dem ci projet yi euh, après lii euh, yaa ngi waajal album donc album bi bu génnee dinañu xaar nga def événement bu mag. pour yi mm-hmm. boo xam ne mooy sànni album bi. moo mm-hmm. koy lancé c'est quoi les projets. waaw ñu ngi waajal album ñu ngi waajal album parce que single mu ngi bëgg a macha allah te liggéey boo gis dañ ciy soxla mu gën yaatu. donc ñu ngi waajal album boo xam ne su génnee incha allah bëgg nañu def ay concert parce que d'habitude concert yi ñu daan def ay nit ñooy tëgg concert engagé orchestre bi mm. pour ñu jouer leen ko pas tout à fait tabaski bi ak korité bi defoon nañu ay tournée un peu partout si si si biir Sénégal mm-hmm. donc euh, cette fois ci nag yoo xam ne ñun ñoo koy tëggal suñu bopp après album bi pour mën gën a gën a jaay euh, euh, album bi

mais jomb dafa dafa jomb ñi toog yonent bi. déedéet kat kat yi ñuy yéeg wala range yi ñuy war. wala yeneen yi ñuy sol yi ñuy dafa jomb ñi koy dugg ci piscine kon dañ ko war a dépasser. Mhm. parce que soo gisee Mouhamed Alioune Diop. quand il koy fan day day assurer jeunesse ah. ci cadre bi nga xamante ni nekk donc mm-hmm. loolu c'est xam ne ñu ngi koy jéem a def mm-hmm. à travers accoutrement yi ñuy am à façon bi ñuy bi ak ak yooyu noonu en tout ñi nekk ci live bi di seetaan yëpp ñu ngi lay apprécier bu baax a baax a baax wax nañ ci clip bi nice bi nga xam moom la nice mais wax nañ sa voix mm-hmm. tamit macha allah ñu ngi ciy wax ñu ngi lay defal ay ñaan yu am solo mais ni ñu lay defalee ay ñaan la may ñaanee man ma naa la di yedd yow bu invité ñëwee euh, nga may ko jàmm may ko salaam kii nga bëgg mu def koo ba yaa tab tab bi ñu ne loolu euh, bu bu amee initiative bu nice la mais ni ngay woowee yaa tab tab bi ñoom loolu euh, moom daf leen a metti leen arrangé ah, nee man top line yi rek laa doon assuré ñu ne nga noppi ñu ne nga noppi bul wax parce que ñoom dañu woor te mënuñu ànd ak woor di reetaan donc ñu ngi lay kontaanee bu baax bàyyi la nga wax sa mot de sant ñi nga xam ne ñoom nga bëgg sant daal di gërëm ñi nga bëgg a gërëm ñëpp soxna parce que benn enfant bu ci la dem sama turandoo donc ñu ci ñu ci yeesal njaal hmm. di ci di ci ñaan yàlla mu taas ñu ci ndax eh, damay faral di wax ne il est dans toutes les moo tax ma leen lu sa soxla rëy rëy waxal ak Serigne Babacar. Mhm. lu sa fit rëcc rëcc toogal ñaan ci barke Serigne mhm. Babacar. Mhm. kon nag góor boobu nga xamante ni il est l'homme au bonheur légendaire l'homme au bonnet carré de cinquante cinq centimètres. l'homme qui n'a jamais troqué son manteau vert warum wa kuntu min ahli ndari wa maskani biha la daal. góor gi xëyee ci waawoon di wër àdduna bi di daw ci soxla sa tamit te lu guddi guddi ci waawoon lay fanaan moi si tu ne connais pas Mbaye Sy demande-le-moi. il est beau il est gentil il donne de l'argent. ndeysaan kenn Serigne Babacar Sy. quelqu'un qui macha allah ci ak turandoom yëpp. soppeem yëpp man damay Serigne Babacar ñu ko ko sopp. ñu ngi lay sant nag bu baax a baax. kenn bëggul bu sëriñ Moussa nga ko mhm. ak sa rapport kenn bëggul bu sëriñ Moussa Fass ñu ngi lay woo mhm. ñu ñëw si Aba ci mu nekk ndax cause bu noble la da koy dem defar defal ñeneen